kalimaati laay taamaati min séri maa xala ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak séeri ñu ngi nuy internet yëpp di wax ne Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc euh, question bi nga ma posé nag question bu pertinente la ndax association bi yàlla def na 4 octobre 4 septembre lañ ma ko joxoon bi may ñëw fekk naa association bi dafa feebaroon association boo xam ne toog na lu war a man ay 5 à 6 ans kenn du cotiser amul ben bilan activité boko joté jotee amul bilan financier kon vraiment il faut mu laaj ay liggéey yu bare bare bu ñu ko joté nak avant ma koy jot do na wax ni il faut une équipe forte et des hommes forts ndax man deng dong su ngeen ma palee mënu mako ko waye suma ande équipe bu mel non bu am doole yalla dina ma dimbalé

mais lii ku ko gis xam ne réussite la suñu grand combat bi ñëwoon tey ji kon lamb ji kon kenn du fi xaj mais nag ñu sant yàlla bu baax di wax ni làmb il faut ñu xam li muy jëriñ parce que régulateur social la waaye tamit régulateur de la paix la xam nga ñii fi ne telu ñu dem di lakk ay pono te bu gënoon fees tamit noonu lay demee moo tax il faut ñuy sóor li ma gën a neex ci la famille de la lutte lépp luy développement ñu ngi ci te mosuñoo kaas mosoo dégg ni mbër yi am nañu lu leen metti ba ñu ngay tam di laa taal ay pneu wala ñuy def dara te pourtant dañuy perte ay xaalis yu bëree bëri ci promoteurs yi ci mbër moo xam ne cent mille francs lay bëre dina dépenser plus de trois cent mille ci làmbam ba pare ñun la tey ji doo bëre waaye mosuñoo génn ci bit di ko kon manager yi ak enseignants yi ak sëriñ daara ñoo yem dañuy fekk xale ci à niveau social bu tuuti yëkkati la ba mu gën a kawee kon nag ñun tey suñu journée bi defuñu ko pour am xaalis mais association bi vocation entre aide la ak sociale dañu war di dimbalante suñu biir war ñoo dem di wër di ñaanaatu ji noo toog ñu ne yaa yor móodloo ba pare nga feebar ñu lay ketal ñu ne loolu dinañ ko fexe ñun ba duñu duñu dal lan moo ñu koy may mooy ñu am ay ressources ressources yi nag ay cotisation lay doon ak recherche de moyens muy comme tey jii làmb yii nga xam ne moom la ñu tëgg moo tax bu ñu promoteurs yi def wujj yaakaar ne dañ fay ñëw pour di xëccoog ñoom ay date non non loolu du suñu vacation bi ñu waxtaanee ak président Bira président Bira nee nañu dinaa jël première mais yëpp ma jox leen ko ngeen koy tëgg. chaque le euh, ñoo ko moom. chaque le premier mais manager ñoo ko moom kon loolu. day wane ne rek ñun benn famille lañu làmb li mu liggéey fii il faut état bi bàyyi ci xelam barki demoon ci Covid bi composante yëpp kenn ku si nekk am na loo yëkkati yóbbul ko ministère ministère de la santé te pourtant bi ñu leen téye seen làmb gisu leen ci mbedd mi kenn kuy taal ay pneu wala kuy def benn affaire moo tax ñuy bëgg ni autorités yi di jël am conscience ci li nga xam ni làmb mi ngi koy def bapare la discipline posant la force principale te loolu la ñuy doxee. léegi tamit moo bëgg a taxaw euh, ci grand combat bi ci diggante Belende ak ki nga xamante mooy Zambala la moo tax ñaari mbir tey ñëw ñu pour pour egg contrat. bon loolu point boobu dinaa la wax waaye ki nga xam ni moom moo régler c'est le CNG de lutte Zambala nee nañu démb ci 18h déposer cette certificat médicale. démb ci 18h démb ci 18h. normalement médecin ou CNG moo la war a contrôler te nit ñi dañoo gis ne ñëwul ca face à bee passé kon loolu ñun manager yi sunu yoon nekku ci ñun li ñu seqal manager bi la ñu seqal sequñu ak Zambala manager bi nag moom ak ñun ak CNG ñoo am contentieux bu dee Blindé Blindé du moom moo war a téye boppam dafa war ba fi arbitre yi constaté ni yow mëno bëré parce que dañ la kaawate won mu doga a mais amul droit tok ba ñew ci lamb ji parce que biñ lay jox avance ya nga ngi dégg ñu ay MMA bo signé kon do ñew jouer sa MMA ba pare ñewat wëlbeutiku ñew di di di ñu porter préjudice lolu warul mëna nek lolu tamit digënté CNG la ak blender ñun daal réussite totale la ñu ndax làmb ji nii mu mel te grand combat bi ñëwul su grand combat bi ñëwoon kon kenn waxatu ko waaw. léegi tey euh, tey lu mu wax ci lu mel ni ginaaw nekkul cas de force majeure. du cas de force majeure kay ay pénalité lay doon CNG munu munul munul bàyyi noonu munul bàyyi noonu nit ki du ñëw yëkkati xaalisam jox la. nga lekk xaalisam ba pare te doo ko doo ko bëreel bu doon da nga am lu valable loo teg ci kawam ci kaw euh, taable bi ñu mën a wax mais puisque loolu amu ci du cas de force majeure yaa ngi dégg léegi nag li des ñun li ñu def nañ sunu programme ba pare mbër yi ñu amuñu ak ñoom problème manager bi la ñu problème ñun sunu diggante la ak manager bi ak CNG waaw bég naa ci papa. jërëjëf. balaa ma lay ana Boy Niang. Boy mi ngi fi mi ngi fi di waajal. tey contrat bi yaa ko signé diggante ak Modou Lo. am na app wala amul app contrat bi. amul amul date fixe waaw amul date fixe parce que xam nga dafa am loo xam ni làmb ñun ñëpp composante yëpp réglementation am na waaye dafa am loo xam ne xel moo koy mottali. su fekkoon ne règlement rek la ñuy topp am na lamb yu bari yu yàqu am na lamb yoo xam ni dañ ci dépensé ay centaine de millions président Sarr ñëw toog jël ay garantie ni su fekkee ni lii mën naa nekk nañ leen dem buñ demee ngeen tëgg seen lamb te ci bés bi la à 13h Bombardier ak Modou Lo te 15 jours 15 jours avant la date la ñu waroon a régulariser. moo tax ma des fois règlement bi day am waye il faut mam circonstance atténuante ndax dañu xol ba xamni li buñ ko yàqee li muy jur xolal tay lamb yi ñu yàq ni mbeur mi gëna ndaw ñu fay ko 100000 dina dépenser plus de 400000 ci togg yi ci transport ak lepp ak sëriñ leen di ñaanal wa légui kooku dommage yi muy créer so mëna na fexé ba loolu bañ am mo gën. loolu moo tax làmb il faut réglementation bi dëgg la waaye il faut tamit ñuy xool loo xam ne circonstance atténuante la ñu mën a wax waaw. jërëjëf Père. waaw.